alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi seen yóbbalu bi ak ndongali Cheikh Ndiaye Gana sëriñ tuuba xaadale wallaahu maxtaara lahu nee na am na maag sama boroom ñetti jataay yoo xam ne bu ci nekk la ma ko ca laaj la mu ca tontu lenn la dama ne ko mbooloo mi nga tàggat seeni xol boole maag ñoom nga xam ne bu ma nekkoon ci ginnaaw sawara woo leen fa dañuy xalal ak ba jeex waaye ñu ma fa fekk bu ma nekkoon ci ginnaawum ndox woo leen fa itam dañuy xalalap waaye danañu ma ma fekk ma bëggoon lu leen musal sunu borom subhanahu wa taala ne ma xanaa du mbooloo mii la topp ma ne ko axa mu ne ma fu ñu toll di waxtaane say mbir fu ñu toll di waxtaane say mbir siiw na mel na ni kon farata lay doon ci bépp murit muy waxtaane sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahoo kem kàttanam te muy ànd ak ab yar ak i teggin ndax bu ñu fàttali ko Cheikh Sidiel Maxtaar Mbakke sama sëriñ radiyallahu taala anhu daana wax ne ku amul ay teggin doo teggi dara te ku amul ab yar doo yor dara wallahu a'lam sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal